asalaamaaleykum mbokki julliti yi mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen balu àq di leen baal àq den leen ziyaare bu gën a tedd nuyoo bi nag dañuy jël nuyoo président bi nga xam ne moo nu fi yónni jël nuyoo délégation bi dugal ko ci jébbal ko sëñ Sidi mu eggaleel ko ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xalifa général des Mourides yàlla na ko yàlla may wér ak kàttan ba mu yeggale liggéey sëriñ Touba bi mu sumb sëñ Sidi ngi lay nuyu ci turu président de la république wante nag li ñuy njëkkee mooy. sant suñu borom sant sëñ Touba mi nga xam ne may nañu tey nu nekk ndawal président la république jëm si ci bis bii di bis suñu Abdoulaat fekkee nañu koy at kon ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne may na ñu fekkewaat fii sëñ si di fekk la fi di ñaan yàlla na yàgg la fekk nuy ànd di màggal sëñablaat sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga jot li nuyoo bi waa kër sëñ Touba ñi fi nekk yépp waaye tam nga jot li ko sa rakk yi nga xam ne moom nga bokkal sëñ sëriñ bi sëñablaat day wax ci day jafe lool ndax doo xam fooy tàmbalee waaye kenn ku nekk mën nga ciy wax ba suba rawati nag ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen lu bari ñu fekke ko bi mu fi nekkee sëñ Abdou Lahat léppam njàngale la muy waxam muy jëfam kon doy na royukaay bépp jullit rawati nag ñun murit yi xanaa kay ku nekk dangay tànn rek la nga cay fàttaliku di ko wax waaye lépp loo jëf jël ci waxam walla jëfam am njàngale la man nag dama ciy tànn benn wax nañu ko fi moo di ne sëñ bi daana wax nekk ñun ñii ñëpp sëñ Tuubaa dong nga tax ñu topp kon taalibe dong la ma sa teg boppam mottali nag ak fedd li sëñ Tuubaa moo tax digganteem ak làmbaay dinaa ci dellusi kon sëñ bi sëñ Abdou Lahad doy na royukaay moo tax président de la république ne nag ginnaaw bu mu la ziyaaree nuyu la mu ngi lay dégg loxoom nga ñaanal ko ñaanal gouvernement bi ñaanal Sénégal yépp pour que liggéey yu mu sumb sëñ Touba jàppale ko ci ba mu eggale ko président nee na kat moom lii mu sumb ci Sénégal da cee def ab sëñ Abdou Lahad royukaay ndax royukaay kat ci kuy jiitam réew ak askan benn ba mooy li si yab laa taxawoon mooy nit ñi jub la ca topp mooy di wax dëgg la ca topp mooy liggéey loolu bu nu ci saxee allah kulli àlleen réew mi dina jëm kanam kon sëñ bi sëñ Sidi ginnaaw bi sëriñ président président feddalee kóllëreem ak yow yeesal ak taalibeem mu ngi lay ñaan loolu nga ñaanal ko ci sëñ Sidi day wax nañu ko ku doylu nga ku xam li la sëñ Tuubaa defal la man day nekk naa ci gouvernement Abdoulaye di ñeenti at yor mbay mi ak càmm gi yor napp gi dellu siwaat ci gouvernement bi waaye musuma gis sama ministère benn lettre bu jóge ci yow walla benn ndaw bu jóge ci yow di ma di soxla di di soxla ci ministère bi te te sëñ bi day wax dëgg yàlla man mënal nga ko ndax ñaar ñi ma séq waral na waxuma la ngay yónnee ci man waaye war nga maa mën a yónni sax ci feneen may dox ndax yow ndax ñaar ñi ma séq muy sëñ Thierno Diouf sama sëriñ ak Abdou Karim Fall mi nga xam ni moo may soxna kon am nga sañ-sañu yónni ci man waaye am nga sañ-sañu yónnee wax ma kon loolu day firndeel ni li ñëpp wax mooy loolu sëñ bi xam nga li la sëñ Tuubaa defal sa sa waajura loolu la daan santaane nan xam li nu sëñ Tuubaa defal kon noo ngi ñaan yàlla sa tànk foofu nga ko teg yàlla na jëm kanam ma dellu si nag ki diggante sëñ Abdou Lahat ak Lambaye li ma ci jëkk a firnde mooy sama sëriñ bii toog sa kanam sëñ ab sëñ Sidi di soob mi sëñ Modou Fatou magam sañ Thierno ngi ni toog bi sëñ ce sëñ Abdou ñëwee Lambaye daf ne jumaay Lambaye ji sëñ Tuubaa ko bind bàyyi fi moo def plan ba su ngeen ko liggéeyul ay nit na jóge feneen ñëw liggéey ko ba muy tàmbalee liggéey ba waajuru kii moo yoroon liggéey ba sëñ Modou Fall ba mu fa jógee sëñ Thierno yeggale ko kon loolu lu yàgg la damay wax ne rek loolu firnde la ci diggante sëñ Abdou Lahat ak Lambaye waaye itam day firndeel diggante sëñ Touba ak Lambaye kon sëñ bi sant naa bu baax a baax sant waa sëñ Touba ñëpp ñu fi tase di sant taalibe yëpp di ñaan yàlla yàlla may jàmm. yàlla na fi yàlla def xéewal te yàlla yàggal la fi ba yàgg di la fekk jërë ngeen jëf wasalaam